ngi yeesal santaat suñu borom subhanahu wa taala di dajewaat ci suñu téere bi nga xam ne moom mooy risaala bu ibnu abi zayd alxayrawaani rahimahullah ñi ngi nekk ci buntu at nga xam ne mooy ñaar fukkeelu bunt bi ak juróom-ñett waaye dem nañ ba daanaka yegg ci digg ba fi ñuy waxee wal umratu yafalu fiha kama zakarna su dee page bi nga xam ne mooy moolu français benn bi mi ngi ci cinquante sept su dee samaru daani bi nga yor xoolal page trois cent soixante dix-huit nga xool ca ligne ligne ba ca kaw rek page trois cent soixante dix-huit te ligne ba ca kaw da ngay gis mu lay wax foofu wan sarafa gannaaw ba wan umratu yafalu fiha kama zakarna su dee bokk nañ ko gis mbokk julit waa ji day bind sunu sëriñ bii di ibn abi zayd mu ne wal umratu yafalu fiha kama zakarna awalan lii di umra day dees na ca def comme niñ ko fàttalee woon ca lu njëkk ila tamaami sa'yi bayna safa wal marwa ba baa muy matal dox ba diggante safa ak marwa summa yaxliqu rasahu gannaaw ba mu wat boppam ba wa qad tammat umratuhu su boobaa umroom ba mat na walxilaaqu afdalu fi lxajji wal umra lii di wattu nag moo gën ci aj ak umra wa taqsiiru yujziu doonte ne wàññi sa bopp loolee lu la mën a doy la wal yuqassir min jamii sha'rihi su boobaa day wàññi ca mboolem karawam ya wa sunnatul mar'ati at taqsir su dee sunna ji jigéen day moom mooy dafa war a a wàññi karawam jigéen lu watu ca la nga xam ne nii moom mooy ak aj mi ngi noonu bokk kon day jàngale ne kii di dem di umra ji ak kii di dem di aji ñoo bokk li ñuy def ci ay jëf te mooy dañoo war a dem ba ci miiqaat ba ñu armale fa gannaaw ba suñu ñëwee makka ñu wër kaaba gi julli ñaari rakka daw safa ak marwa ci nekkoon ci umra moom mbiram foofu la jeexe waaye moom ci dul at ñu bokk li ñuy def su dee ni da ngay umra nga ñëw ba wër kaaba gi daw safa ak marwa léegi li la dese mooy sa karaw nga wat ko wala sa karaw nga wàññi doonte ne wat gi mooy lëkkën bu dee jigéen ne moom duñ ko sant mu wat dañ koy sant mu wàññi su ko defee ci cati bopp bi yëpp lay wàññi mu tolloo catu baaraam bu ndaw a benn ay trois à cinq ñu ngi noon deux à trois centimètres maximum bu ko defee bu dee góor bëgg nañ ci côté bët bu karaw bopp yëpp fu nekk mu wàññee ko fa loolu mbokk fa la omra yam loolu mooy omra muy wane na kon omra moom mënees na koo def bu la yàlla yombalee daanaka ci une heure de temps maximum mu jeex léegi nag yow muy omra wala yow muy aj lay wax wala basa an yaqtula almuhrimu alfara walxaya walaqrab wa shibhiha ki nga xam ne dafa nekk ci aj Makka mën na rey ganax ya jaan ya jiit ya ak lu mel noonu wal kalbal aqu mën na rey bépp xaj boo xam ne dafa génn noonu defee te mooy xat boo xam ne dafa ànd ak rage wa ma yaxduru min aziaabi wa sibaa'i wa naxwihima ak lépp loo xam ne day màgge ci tilliir ak yey faddaate ak lu mel noonu wa yaqtulu min atayri ma yultaqa azaabu min aljilbaani wal ahdiya faqat bu dee ne picc yaa moom la cay waraate rek lañ ciy jël di ko rey ñi di mafia ak lépp loo xam ne nii eggal la yu mën a dal ci kaw doomu aadama ba man koo gaañ loolu lay wax kon ci wàllu umra googu bokk na koy jàngaat ba tey mu ni wa yajtanibu fi xajjihi wa umratihi nisaa wa tiiba wa maxiita siyaam ki nga xam ne day aj makka ca ca armal na moytu jaxasoo ak jigéen na moytu laal parfo maa ngi jublu jaxasoo ak jigéen ci wàllu sëy gannaaw ba na moytu laal parfo moytu sol lu ñu ñëw moytu la nga xam ne mooy ak rëbb wa qatla dawaabi ak rey lépp loo xam ne muy dox wa ilqaa al tafasi ak teggi sànni la nga xam ni ay sobe la te loolu lañ ci jublu mooy daggiwe yaag dindi karaw yaag yooyu yëpp lañ ko tere doonte ne ni am na ñoo xam ne dañ koo déggee ni ci armal moom du sangu dafa war a ànd ak tilimam noonu ba ak ga jeex loolu nag moo ko am njuumte la ko armal lañ koy tere bu mu dagg wéyam bu mu watu waaye kenn teewu ko mu sangu islam farataal na ci moom am njàpp farataal na ci moom sangu farata su demee ba yëg ni tilim ne yëg bu ko neexee mu sangu sangu dindi tilim yére boobu kon bu yëgee ni tilim na bu ko neexee changé ko ci biir aw umra gi wala at gi loolee doonte ne du laal farfa du laal it yére boo xam ne dañ koo ñaw loolu bu dee góor la bu dee góor a wala ñu xatti raasahu fi lihraam góor du muur boppam heure bu armale wala yaxliquhu illa min darura du war boppam ba lu dul ci lor summa yabtaji bi siyaami talaatati ayaam gannaaw bu mu jotoo koor ñetti fan aw isaami sitti sittati masakin wala mu daal di leer juróom-benni miskin mu day ni li kulli miskin ku nekk mu jox ko ñaari mudd ak après un kilo bi muddi nabi sallallahu alayhi wa sallam te muddi yonente ba sallallahu alayhi wa sallam aw yansuku bi chat wala mu daal di rey benn gàtt boo xam ni mooy yan suba bu joxee la nga xam ne jaamoo yàlla benn gàtt yan suba la boo xam ne dana ko rendi xaytu shaa min al bilaad fu ko neex ci dëkk yi même bu dul Makka ba ko kon kii day wax ni ki nga xam ni dafa armal dañ koy tere mu muur boppam ci mbaxali wala kaara wala muur kanamam ci na nga xam ni mbokki naar yi koore bi dañ koy def loolu nañ ko ko teg amaa nag bu doon dafa yor lu mel ne parasol loolu yi kenn jërewu ko ko ndax loolu kenn du ko tuddee muuraayu bopp daf koy fegal rek la nga xam ne mooy naaj bi bu dee ne boppam ba am na lu tax mu war koo wat masalan tey am na fu gaañu médecin yi ne ko il faut ñu ñaw ko il faut ñu wat bopp bi su boobaa dangay gis ne dafay war a wóor ñetti fan wala mu leer juróom benn miskin wala mu rey ab gàtt nga noonu ndax ki armal warul wattu lu dul gisu tabaski amma bu dee am na lu ko tax di wattu jiitu loolu fokk mu wóor wala mu lele wala mu rey ab gàtt lii lépp mu la doon wax nag mi ngi lay wax ci wàllu góor ñi bu dee ni jigéen ñi mu ne ba tey wa talbasul maratul xuffayni wa siyaabi fi ihraamiha jigéen moom heure bi armal su ko neexee sol ay bot bu dee góor dañ ko koo tere lu dul fekk ay bot la am ñu ne ko bot daggoo ko ba mu toll sa kosteen jigéen lu ko neex lay sol ci armalam la ñuy sol na suturaal awraam rek looloo tax dañ koy jigéeni Sénégal yi di sonn lool di wut ay arme yu weex ne mel nii mel na déedéet jigéen lépp lu ko neex mën na koo sol ci armalam lañ koy sant mooy na suturaal awraam wa tattani wa tattanibu ma siwa dalika mimma yajtanibuhu rajul waaye nag gannaaw yi que yàlla may ci mu sol lu ko neex ci mu sol ay mbokk lépp luñ tere góor nag tere nañ ko ci li ñu wax ci kaw kaw wa ihraamul mar'ati fi wajhiha wa kaffayha jigéen lan lay feeñe ne armal na mooy warul muur kanamam warul sol ay gants ci loxoom doonte ne ni bu doon nekkul ci at loolu sopp nañ ko mais bu dee ci aja loolu duñ ko tere ci moom wa ihraamu rajuli fi wajhihi wa ras su dee góor moom duñ ko tere bul muur sa bopp bul muur sa kanam wala yalbasu rajulu xuffayni fi lihraam illa an laa yajida naclayni falyaqtauhuma asfala min alkaabayn góor bu dee dafay addi warul sol la nga xam ne ay bot la allahuma lu dul boo amul lu dul bëti kese ñu ne la kon dagg ko ba mu gën a suufee la nga xam ne mooy say kosten mi ngi noonu bu doon te da nga am chaussure ferme yoo xam ne muurul sa kosten loolu da ngay gis mën nga ko sol léegi mbokk loolu lay wax ci wàllu teggin yi nit ki war a àndal buy aj wala buy omra léegi nag mu ñëw ak yow ci façon aj yi mbokk aj ñetti façon la donc ne Sénégal yi doon nañ ci quatrième waaye ñetti façon la moom lay jàng nii mu ne wal ifraadu bil xajji nga daa di yem ca aj kese muy ifraad ca aj ga afdalu indana loolu de moo gën ci ñun mazhab Maalik min al tamattu yi ca ka nga xam ne day def tamattu wa min al xilaali ak kay lënkale diggante at ak umra fa man xarana aw tamattaa képp koo xam ne ak na daa di lënkale ak umra wala mu umra ba pare dooga ak muy tamattu min gayri ahli makka te bokk ci waa makka fa alayhi hadiyun yatba'uha kooku day fokk dana war ci moom ab gàtt boo xam ne dana ko rendi aw yanharuhu wala mu loj ko bu dee gëléema bi Mina ca place bi ñu wax Mina in awqafahu bi arafa su doon daa ànd ak moom ca arafa wa in lam yuqifuhu bi arafa bu àndul ba muy rey ca arafa fal yanhar bi makka kon na ko rey ji ca makka bil marwa te place bi ñu wax marwa baada an yadxula fihi min al xil gannaaw bu ko dugalee jële ko fa nga xam ne xaramul mag yi génn na ko fa in lam yajid hadiya su amul lu mu rey fa siyaamu salaasati ayyaam na war kon ñetti fan fi l xajji ca at ga yaani min waqtin yuxrimu ila yowmi arafa fam armale ba baa muy doon kuy taxaw arafa fa in faatahu zalik su ko doon rombe it saama ayaamu mina na woor bis wilaaya wa sabatan woor juróom-ñaari fan nag isa rajaa heure boo xamee dellu na mi ngi noonu mbokk li mu lay tënkal fii mooy ak Makka dafa am ñetti façon aj dana la ko leeralal ci kanam waaye ñoom ñu ne lii mazhab Maalik ñoom ifraat moo leen gënal lan mooy ifraat ki nga xam ne bi muy jóge réewam bi dem Makka aj Makka rek ko yëkkati boole wu ci umra loolu mooy ifraat ñoom ñu ne moo gën ndax ñoom dañoo jàpp ni yonent bi alei salaam bi muy aj loolu la defoon te yàlla du tànnal ak yonentam lu dul lëkka am na ñoo xam ne dañ ne xiraan moo gën ndax yonent bi daa xiraanoon xiraan mooy lënkale aj ak umra li ngay di def benn la masalan kii doon aj di xiraan ak kii ak kese li ñuy def lépp benn la amul différence seen différence mu ngi nekk ci yéene ba ngay yéene dugal aj ak umra ak rey ga ngay rey waaye ci leen doon seetaan moom di gis benn différence lu dul kii rey ni kii reyu loolu mooy xiraan danga la wax sama tox ci kanam loolee kon mbokk borom xam-xam yi dañ caa am ixtilaaf allahuma lu dul su dee da ngaa ñëw yéene ne man kat damay boole ale umra ñaar moo mën a nekk am nga gàtt boo rey nga rey ko lillahi alhamdu suñ jamonoy tey jii kenn du dem màkk di nga bare gàtt yooyu rey ah gouvernement saoudien ñoo koy organisé ay tikke ngay jënd kon soo amee kàttan jënd tikke nga jënd tikke ko defee lam lay wax naan boo ko yóbbu arafa boo ko yóbbu mun a loolu moom jamono yu njëkk la woon mais léegi loolu amul su ko defee kon tikkee daal ngay jël yéene ñu rayal la ko nga lënkale ak gi ak umra bi su dee da ngay def tamattu yi même chose da nga jënd tikkee ñu rayal la nga yéene umra ba umra nga jeex nga doog a dugg càpp waaw léegi nag soo amul loo jënd tikkee nag amoo loo rey ñu ne kon fi nga armale jëm ci aj ga fa ba aj gi bii pare ci arafa xoolal foofu mën a wóor a ñetti fan loolu foofu la gënee su dee ne faat na la nag téewul bu arafat paase it nga xool noo mën a wóor a ñetti fan su dee dellu nga sa dëkk nga doog a woor juróom-ñaari fan moom la borom bi di wax naan fa man tamattaa bil umrati ila al hajj fa siyaamu salaasati ayyaamin fi l hajj wa sab'atin ida rajaatum loolu kon mbokk lay wax ci wàllu googee soo xoolee sa téere bu lay jàngal nag lu ñuy defee tamattu wa sifatu tamattu bu dee melokaanu umra doog a aj an yuhrima bi umra summa yaxilla minha fi ashhuril hajj mooy nit ki dem màkk umra ji gannaaw bu mu daal di ciy génn umra umra ba jeex mu solat ay yéreem fekk na loolu ci weeru at la summa yaxujja min aamihi qabla rujuuci ila ufuqihi gannaaw ba nag mu daal di at ca at ma avant muy delluwaat ca wax bu mu def aw ila misli ufuqihi fi bu'd wala lu mel ne wax bu mu def ci soriwaay wa lihaada an yuxrima min makka in kaana biha bu dee ne loolu yëpp dañuy gis ne dafay war a armale ci makka bu dee ci makka la nekk wala yuxrimu minha man araada an ya'tamira xatta yaxruja ila alxij waaye su boobaa ki bëgg a umra moom balaa umra fekk makka la nekkoon il faut mu génn makka dem ca fa nga xam ne moo génn xaram bi ñu koy wax alxij mbokk kon da ngay jàngal lan mooy tamattu waa ji dem màkka te nar fa yàgg asalam Sénégal yi léeg-léeg nga gis ñoo xam ni dañuy avion yi mën nañ yëkk màkka fekk dix jours des na avant ñuy dem arafa ñooñu la leen gënoon a noppal mooy tamattu lan mooy tamattu mooy bi nga yéene jëm màkka yaa ngi yéene ne yaa ngi ñëw pour umra umra labbayk allahuma umra naam yéene wale nga at waaye da ngaa yéene jiital umra labbayk allahuma umra soo ñëwee nga def li ñuy umra wër kaaba gi daw safa ak marwa wàññi sa karaw te fii tamattu moom dañoo sopp ci moom mu wàññi karawam ndax bisu tabaski bi mu am karaw bu mu wat wàññi sa karaw léegi jeex na suñu sa yére yan ñëpp a yem loolu yi dañuy wax sama toog te moo di ne yaa ngi bànneexu ci li nit ñi ajur di def ba ba ajj gi taxaw diggante fi nga tamatoo ak fi ngay ajee mën na def sax deux mois ndax tant que umra bi nekk na ci weeru aj damay korite waa ji kori woon tey jii dem Arabie Saoudite dem dem mag daal di def umra su ko defee génn ci yéene aj toog trois mois presque deux mois yi kat at jot mu at loolee tamattu lañ koy tuddee su boobaa nag dañuy gis ne dañu la ko wax a sànq fokk mu rëy da nga xam ne ab gàtt la su ko amul mu daal di woor ñaari weer mu daal di woor la nga xam ne ñetti fan te biir Makka juróom-ñaari fan heure bu nimbee waa ji defoon tamattu mooy bi ñuy ñëwee umra na sol ay yére ñu toog dix jours avant aj un mois avant aj deux mois avant aj léegi nag ak dem nañu ngi war a xëy dem munoo fa nga xam ne fa la dal foofu lay armele rek ànd ak mbooloo ñu dem loolu mooy léegi ci aj màkka la amma bu doon koo xam ne daa nekk ci biir màkka ba pare moom bëgg a umra dañ naan ko déedéet il faut nga génn màkka ba boole la nga xam ne mooy alxil ak alxaram doog a dugg si la doog a umra si loolee da ngay gis ne kii ak Makka day génn xaramul maki dem Arafat boole la nga xam ne mooy alxil ak alxaram gannaaw bi kii umra yi loolu lañ koy sax mbokk lii lay wax ci wàllu tamatoo boo tiimee sa téere ñu wax nag léegi ci wàllu lu ñuy tuddee xiraan wa sifatul xiraan bu dee lu ñuy tuddee xiraan moom an yuhrima bi xajjatin wa umra maan mooy nga yéene ne sama aj ji ak umra ji daal dama koy lënkale ci benn yéene wa yabdau bil umra mu commencé umra ci yéene fi niyyatihi wa ida ardafa alxaj al umra bu dee dafa lëkkale ak al umra qabla an yatuufa avant muy wër kaaba ga wa yarkaa daa di rukoo wa huwa qaarin kooku ba tey dañ koy tuddee qaarin wa laysa ala ahli makka ñii di waa makka ñoom day duñu def hadiyun fi tamattu wala qiraan ñoom day amuñu sunna bu leen tëralal ñuy mën a def tamattu wala xiraan ci dëkk Makka moom du mën a def ci yooyu dara kon waa ji dafa dem di def xiraan boole adem umra li ma la wax sànq mooy jëf yi ngay jëf moom benn la ci yéene bi daal lay amee importance waa ji bu ñëwee Makka yéene xiraan day yéene ne kon maa ngi dugg seen umra ji wër kaaba bi daw Safa ak Marwa loolu da ngay gis ni umra ba moom mat na foofu waaye comme daa xiraan du laal ci boppam dara du laal ci boppam dara lu dul bi su tabaski bokk la ciy def tamattu nga xam ne moom day umra pare ci laal boppam soli ay yére kii xiraan moom du laal ci boppam dara moo kii ak kese ñoo yem su ko defee su dee ne ñi ngi jëm arafat jëm muna loolee da ngay gis ne aj ga mooy commencé ci loolu kon lënkale na aj ga ak umra ga te loo xam ne sumiwu ci ay yéreem génnul ci armala loolee bu du tee dana am yoolu aj dana am yoolu umra lii mbokk da ngay gis ne lay wax nag ne waa Makka amuñu droit ci loolu mi ngi noonu moom lay wax ne moom ne wa man xalla min umratihi koo xam ne daa summee ko ca umra qabla ashhuril xaj te fekk weeri ak dugagul summa xajja gannaaw bu mu xajj min aanihi ca atam fa laysa bi mutamattia kooku kenn du wax ne dafa def tamattu tamattu ki kay ki ko mën a am mooy ki umra ci weeru aj mbokk bu ñu xoolee li rot ci téere yi rot ci sunna yeneen ci bi alayhi salaam mooy ñetti façon aj ak bu njëkk gi mooy ifraad yéen dem Makka ngir ak kese ku mel noonu du rey dara aju ñaareel bi mooy xiraan yéen lënkale aj ak umra moo kii def ifraad ñoo yëpp seen différence nag mooy kooku day rey ñetteelu aj gi mooy tamattu mooy ki nga xam ne dafa ñëw umra summeeku wàññi karawam bàyyi ba aj gi commencé mu dem aj yi ñett yi mooy aj mais boo xoolee masalan Sénégal suñu mission yi nga xam ne ñooñu yàgg a jiite ñoom dañuy wax sénégalais yi ñun di ñu def ifraat ak kese nga xam ne du ñu rey doo rey nga def ak kese doo rey suñu ajee ba pare nag ñu ne leen nag léegi nag génn leen Makka ngeen ñëw nag doo ko umra si loolee mbokk saxaaba yi xamuñu woon loolu loolee yonent bi alayhi salaam mi ngi koy defaloon yaay Aïcha ndax yaay Aïcha dafa ànd ak mbooloo mi ñëw ba yëg si Makka yàlla dogal mu gis règle comme léegi gis na règle mënul wër Kaaba gi léegi bisu aj ba la ànd ak nit ñi aj ji ba ñu ajee ba pare ñëw na def na tawaaful ifaada def yëpp mu ne yow yàlla yéen nit ñi dañuy ñibbi ànd ak aj ak umra man ma ñibbi ànd ak aj kese mu ne ko moo ne day sa taxaw Arafat ak su wër Kaaba gi doy nga la ci aj ak umra waaye affaire yi jigéen lañ ca la wax frère am ba Abdourahman ne ko génne ko ba alxim moom la ñuy tuddee Tanim masjid Aïcha sax lañ ko tuddee mu armale fa. ñëw wër kaaba gi daw Safa ak Marwa ngiree mu am umra waaye gannaaw Aïcha kenn ci saxaaba yi def mais Sénégalais yi ñoom loolu pour contrôler rëdd boo xamee ne ni tey jii boo demoon Makka matul sax cent mille francs léeg-léeg soixante mille sax mën nga jàpp rëdd kii ñu laaj ko deux millions six cent ci la gën a néew am ñu laaj trois millions am ñu laaj presque cinq millions kon la gënoon mooy ñu def loolu xiraan wala ñu def loolu leen tamattu loolu ñaari at yooyu lu sax la ci sunna mi ngi noonu ku jóge Sénégal ba Makka près de million dem fa ngir ak kese bàyyi umra loolu wax dëgg yàlla xel na moom kon fokk war na xiraan wala tamattu ci différence bi bëriwul même bu amul lu mu ko jëndee ñetti fan rek lay war mag lay war mag ñetti fan kese heure bu jógee ci at ga même bu doon fii at heure bu ma nee mu war sept jours loolu yi kon mbokk képp koo xam ne am na mbokk bi aji na ko laay biir ci loolu jokkoo ak borom xam-xam ñi ngay laay biir ba mu def xiraan wala mu def tamattu ni ngi loolu su dee ne ci bind bi nga xam ne nii moo ci dox wa man asaaba saydan fa alayhi jazaa'un mislu ma qatala min an-na'am képp koo xam ni ci yoon ba dana caa rëbb am loo te jàpp ci rëbb nga rey ko te ku mel noonu des na joxe ak jox koo xam ne dañ koy joxoo yaxkumu bihi zawa adlin min min fuqaha al muslimin moo atte ko ñaari borom xam-xam ci borom xam-xam yu jullit yi wa mahalluhu mina fam ko war a rey rek nekk mina in waqafa bihi bi arafa su dee ne la mu war a rey yóbbaale woon na ko arafa wa illaa fa makka bu dul loolu na ko rey ca makka wa yadxulu bihi min alxil mu jële ko ci xil ay bu génn alxaramu makin wa lahu an yaxtaara dalik su ko neexee mu tànn rey boogee aw kafaaratu taamu masakin wala mu def kafaara leen ay miskin aw an yanzura ila qiimati sayd ca mooy bu boobaa day xool la waroon rey lan mooy xaymaam mu xool fa ka aman ci ñam bu mu war a jënd fa yatasaddaqu bihi mu daal di koy sarax aw adunu zalika siyaamu wala mu daal di woor lu tol noonu an yasuuma an kulli muddin yowman te mooy mudd bi mu waroon a saraxe mu waral ko ak koor wa li kasri muddin bu dee genn wàllu muddin yowman kaamilan mu waral ko bis bu mat sëkk والأمرة سنة مؤكدة مرة في الأمر في الأمر la nga xam ne nii moom mooy umra moom sunna bu ñu feddali la benn yoon ci at mi mbokk atte yi moom daanaka defe naa Sénégal di nga mën a jëfe te mooy su dee avion ngay jël aéroport sëppeeru Jidda wala Madina daanaka boo fa jógee dugg ci ay kaar di am looy rëbb ci yoon yi moom dana jafe ci yow xam naa bu njëkk nag nga xam ne nit ñi ci suuf si lañ daan jaar léeg-léeg am yàlla mu saan nattu mu am loo xam ne dañ koo rey ci ay rëbb su boobaa borom bi mu ne nañ xool ñaari borom xam-xam ñu xool la nga rey lan la méngóol reyal nga benn cokkeer wala benn pigeon ñu ne kon reyal ganaar rey nga géwël ñu ne la kon reyal bëy rey nga nagu àll ñu ne reyal nagu kër ilaahi loo xam ne dañ koy jël yóbbu ko màkk loolu lay wax ci wàllu googi wala boog ñu xool nam méngóol ci ñam ñu sarxe ko wala nam méngóol ci ay mudd nga woor loolu lay wax ci loolu amma li mujj wax mooy umra moom du farata te loolu mooy musamman umra moom du farata sunna la bu ñuy seddale la te loolu it ku yàlla wërsëgal nga jógee rawatina dëkk bu mel ne Sénégal près de million wax dëgg yàlla boo demee moom allahuma lu dul ngal war ngaa mën a umra rawatina borom xam-xam ñeneen ñi nga xam ne dañ jàpp ne farata la wante ne la gën a lënk mooy sunna la lu dul nag nga am gàtt su doon da ngay aj yi yàlla dogal am na ngaan umra wóor yi xamal ne loolu yàqul ci sa aj dara loolu mi ngi noonu bu dee nii la nga xam ne mooy bind bi mujj a jàng te mooy wa yustahabu liman insarafa min makka sopp nañu ci ki nga xam ne day jóge makka min hajji aw umra day at wala umra an yaqula aayibun mu wax ñu ndee ñu ci dellu taaibuun ànd ak di tuub aabiduun ànd ak di jaamu suñu borom di rabbina di rabbina xaamiduun neel ñeel suñu borom koo xam ne ku koy sant la sadaqa allahu waada yàlla dëggal ne ab digam wa nasara abda dimbali na jaama wa hazama al ahzaaba waxda daal di dàq noon ya moom kis lii mbokk la ñuy wax ci ku jógu umra suñ dar sa passé waxoon nañ ci ni kii nga xam ne dafay jógee ci at fokk mu def la nga xam ne mooy tawaaful ifaat mooy tawaaful wada wër kaaba ngir tàggu ko doog a mën a génn makka su di umra nag ixtilaaf la caa am ca borom xam-xam yi am nañu ni umra amul tawaaful wada am na ñu ne ah kay bu dee da nga umra toog makka booy dem da nga def tawaaful wada am na lu ñu leen waxoon nit ca daan sa dépassé si wàllu jigéen gi war a def tawaaf ba pare dem dañ ci waxoon mooy tawaaful wada waaye la gën a wér mooy tawaaful ifaada la ñu waroon a wax mooy tawaaf bi ngay def ci ak bi si biir tabaski bi su dee soxna si ànd na ak réglam su boobaa dafa war a bàyyi ba règle bi pare mu dog koo def amma bu dee avion mi ngi koy xaar su boobaa la borom xam-xam yi wax roobi la ñu dëkk Makka ne ku mel noonu day dem wër ak réglam boobu gannaaw ba mu fagaroo ba dara du wàtte ci moom loolu mooy tawaaful xaj tawaaful ibaada amma bu dee tawaaful wadaa mooy wëru tàggatoo kaa bi rek ngir def jigéen bu fekkoon nga ànd ak règle jarul nga koy wër loolu nekkul ci loo xam ne ni ñax ku mel ne safiya ci aju yonente ba salallahu alayhi wa sallam loolu daloon na ko yonente bi alayhi salaam dana ko nit ñi di rayuñu ko dara kon jigéen bu dee dara la suñu dul tawaafu tàggatoo gaabe ku mel noonu jarul mu koy dem di wër ne dem ñi bi dara wëru amma bu dee ne nag tawaafu at ji nga xam ne ponk la ci ponk at te avion mi ngi koy xaar mënul toog Makka di xaar loolee la borom xam-xam yi ne rawatina ko mu ne Cheikh Ouseynin nee na dem wër kaaba gi te bu boobaa la nga xam ne mooy ajam ak umram dana baax ñaan gi ñu mujj a jàng nag lan la lay jàngal mbokk jaamu yàlla jullit keroog ba mu ko defee keroog la gën a toroxlul yàlla bi ngeen sëlmale léegi seen julli lu ngeen lu ngeen lu ngeen jëkk a wax mooy astaghfirullah astaghfirullah am ne loolu mooy jaamu yàlla jullit heure bu jaamoo yàlla ba pare da cay boole tiit mbaa yàlla nangu na wala nangu nangu na ma moom la borom bi di wax naa walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun jullit keroog ba mu gënee sellal jaamu yàlla gën caa sonn keroog la gën a tiit maa mbir mi ngis sal dugg ci mbaa defe naa ko na ko sunna bëggee looloo tax kii nit bi wante loolu sunna rek la mu ne ah ñun de ñoo ngi ni ba ànd ak tuut suñuy bàkkaar faa iboon xoolal yonent bi alei salatu wasalaam keroog bu muy jógee xasota tàggu ñaar fukki fan mu def ko ci désert bi suñu borom wax coono ñu fa des daj yëpp borom bi ba muy wax ak ñoom dane laqad taaba allahu ala nabi yàlla nangul na yonent bi ak tuuba gis ngeen kon taa iboon ñi ngi wane suñu tuub doon ñoo xamee ni nii ñi ngi doon ñuy jaamu suñuy boroom boole sant suñuy boroom fatiha bi na jàng yaa ngi naan alhamdulillahi rabbil alamin yaa ngi wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aabiduuna li rabbina xaamiluun gannaaw ba nag soo demee ak makka dem nga arafat ci jàmm wër kaaba ga ci jàmm gisoo ko benn xërëm ñëpp ànd laa ilaha illa allah labbayk allahuma labbayk nga fàttaliku ko nag yonent bi alei salaam keroog bu ñu koy génne mag fàttaliku keroog ba ko xërëm yi wëre fàttaliku coono ba ñu fa doon dox kenn ñemewul taxaw ci màkk ne laa ilaha illa allah loolu boo ko fàttaliku la nga ne ah sadaqa wallahu waada yàlla dëggal na lu jege woon nasara abda dimbali na jaamam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dàq na ay noonam moom kese jalla wa ala mbokk lii mooy ab tënk bu ndaw boo xamee ne nii borom téere bi tënk na ko ci wàllu acc soo demoon ci yeneen téere dana ci farlu ëpp fukki yoon li mu ci wax waaye jàpp nañ ni lii bu ko doyloo it insha allah da nga aj aj goo xam ne nii aj bu yàlla gërëm la yàlla yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ñu at na mu ko bëggi te mu nangul ñu àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain
ana yàlla fay la yiw
ala kulli xaal day wax ne ki nga xam ne moom ci koor gi la demoon def fa umra ndax kooku bu dee ne dafa toog ba aj jot buy aj dafay jóge biir makka na am boo ko julit képp koo xam ne da nga yéene aj bu dee ne yow fi nga nekk romb na miiqaat bi masalan tey ji buñ ne woon waa Mauritanie seen miiqaat kat mooy Saint-Louis su ko defee kon dañ naan waa Louga waa Kébémer waa Thiès ku nekk fa nga dëkk foofu ngay armale jëm Makka maadaam miiqaat baa nga sa gannaaw naka noonu it waa Makka képp koo xam ne at ji dalaa fekk Makka yàgg nga dëkk Makka yem foofu ngay déparé at loolu mooy bu njëkk bi ñaareel bi mooy waa ji nga xam ne ci umra da koy def ci biir koor waxoon lañ sànq ci biir waxtaan bi ne kii def tamatoo tamatoo du nekk lu dul da nga umra ci weeru acc mooy kori nañu bu ñu xisee ba ne weeru kori yi ga feeñ na bu subaa bu la neexee sol say dàll dem def tamatoo su kooku dañu naan ko sopp nañu mu daal di wàññi karawam ngiree aj ga mu am lu mu wat waaye luñ ku loolu ci kan lañ ko sopp mooy koo xam ni digganteem ak fi muy umra ak fa muy aje jàpp ne karawam du fa sax ndax am na ñoo xam ne ni bu dee ay une semaine rek loolee seen karaw du fa saxati karaw gu tax ñuy mat mën a wat waaye bu dee ni diggante bi dafa yàgg su boobaa da ngay gis ne la gën ci moom mooy mu wat karaw googee ndax bu aj Màkka jotee de wat encore dana am leneen lu bari lu mën a wat te it foog naa wax nañu ne tamaton ki nga xam ne dafa umra te fekk weeri aj jotagul kookee kenn du ko tudde tamaton dada umra am umraam waaye bu aj jotee day yéene ifraat daa di aj ak mbooloo mi insha allah wallahu subhanahu wa taala alam naam naam alayhi salaam ala kulli xaal aj Makka moom li nga xam ne moom la ci jumhurul ulama wax mooy dafa am ñeenti ponk ponk bu njëkk bi mooy li ñu tuddee armal da nga xam ne da nga koy defee ci miqaat nga armal jóge place tel yéen yaa ngi dem sa aj ga comme ni ngay waxee allahu akbar ba dugg ci julli ñaareel bi mooy li ñuy tuddee tawaaful ifaada mooy wër gi ñuy wër ci bisu tabaski bi mooy fekk yaa ngi jóge arafat loolu moom ponk la ci ponk aj gi la nga xamee ni nii moom mooy ñetteelu ponk bi mooy daw gi ngay daw safa ak marwa ñeenteelu ponk bi mooy taxaw bi ngay taxaw arafat daa fekk na nag ñetti ponk yi jiitu yépp mënees na koo def ci bis yu baree baree bari suuf la nga xam ne mooy arafat arafat moom benn bis la boo xam ne bu la rawee at ji raw na la ca déwén la nga ko mën a dabat looloo tax booy seetaan télévision ñi nga xam ne ñooy gouvernement saoudien yàlla yàlla fay leen da ngay gis ambulance yi tegaloo jóge Makka jóge Madina jóge fu nekk di yóbbu malade yi ngir ñu dem taxaw arafat am na hôpital spécial bu ñu fay def bu ko defee malade yi même ñi nekk dans le coma yëpp dañ leen di yóbbu ñu yellu arafat ñu doog leen faa génne ndax bis bu bu la rawee rek at gi moom yàqu na ba faw ba ba ba déwee ni ci encore waaw mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam xam naa ñu bàyyi bilal nodd rek incha allah waaw waaw ala kulli xaal day wax ni koo xamee ne nii jigéen la moom dafa nekk ci wasinam dereti wasinam jeexagul gannaaw ba mu daal di gént léegi janaba daal di war ci moom ba tey léegi ndax kooku naka lay def ci wàllu googee ala kulli xaal li nga xamee ne nii moom mooy jigéen bu war a sangu janaba la tax ñu ko koy wax mooy ngiree mu mën a nekk di jullee ka woor a ko yu demee noonu maadaama moom mi ngi nekk dërëti wasinam loole da ngay gis ne jarul muy nekk di sangu janaba mën na bàyyi ba nga xamee ne nii dërëti wasinam jeex na su dee yéene ne sangaay bi deretu wasin beeg deretu janaba bi loolee dana ko doon lu ko doy allahuma mu ragal da koy fàtte walla yu demee noonu su boobaa mën naa sangu la nga xamee ne mooy janaba bu mu teggeeku ko doonte ne dootul mën a julli fi yéeg ne deretu wasinam jeexul heure bu deretu wasinam jeexee mu daal di sangu la nga xam ne sangu dereti wasin la loolee ngir mucc ci ixtilaafi boroom xam-xam yi jàpp ne ñaari sabab bu amee ci cangaay ñaar yëpp la ñuy sangu te mooy ñoom ñi nga xam ne dañuy jàpp ne jigéen bu àndeek janaba dafa war a sangu janaba doo ko sangu la nga xam ne moom mooy farata comme ci ñu ñu mel noonu ñooy wax ne ki war a sangu janaba fekk dafa war a sangu ajjuma dafa war a sangu janaba pare sangu ajjuma waaye donte ne loolu du waxi boroom xam-xam yëpp li ñu koy wax daal moo di ne ne su doon tene ne bàyyi na ba deretam jeex mu yéene cangaay set ngir julli loolee dara nekk na lu baax su yéene it sangu janaba ba bu setee mu sangu la nga xam ne mooy dereti réglam wala dereti wasinam loolee da ngay gis ne mooy la gën a dal xel wallahu subhanahu wa taala alam ñaareel bi lu ci waxati woon waaw waaw ala kulli xaal di julli wàcc lu xaaj yëkkati loo mu jóge ci rukkoo waaw ala kulli xaal ay wax nit ñi bu ñuy julli yow da ngaa jóge ci rukkoo nga tegalewaat say loxo wala nga wàccewaat say loxo ala kulli xaal loolu mbokk borom xam-xam yi dañ ci am ixtilaaf dañ ci am ixtilaaf ku nekk indi na ci say tegtal liñ ciy gis rek lépp lu ci way def ay borom xam-xam wax nañ ko mi ngi noonu te jii boo gisoon ku mel ne cheikh nasiruddin albani ci téeréem boobu muy wax sifatu salatu nabi da cay saxal ci ne ki nga xam ne dafay jóge ci rukkoo daa war a wàcc ay loxoom la ngeen di gis ñu koy def makka ak madina nag yéen ñëpp gis ngeen ko mooy ñoom seeni borom xam-xam rawatina di sukkandikoo ci mazhab ahmad ñoom dafa am hadis yu ñuy sukkandikoo yu wér ca ñoom yu wane ne ki jóge ci rukkoo dafa war a tegale ay loxoom su ko defee loolu moom ay ixtilaaf la ci borom xam-xam yi lu ci waay def rek baax la cheikh nasiruddin albani boobu nga xam ne te ñu gën a dëgër ci loolu la doon na wax ne su ma doon julli tey ci gannaaw cheikh bun baaz su ma jógee rukkoo damay tegale samay loxo xam naa ne borom xam-xam la li mu wax da koo teg ci xam-xam bu mu gëm moom donte ne gëmuma loolu loolu it day wane ne mbooloo bu ñu mënoon a dëppoo ànd loolu yi mbokk day doon lu rafet su ko defee ala kulli xaal daal lu ci waay def loolu lu baax la wallahu subhanahu wa taala alam naam ah bismillah naam amin wa yaakum ak yéen waaw waaw d'accord incha allah waaw incha allah barakallahu fiikum waaw kooku day wax rek ne te wax dëgg loolu wax lañ ci gën a jublu ci tafsir beeg yëpp mooy di ko def benn benn benn léeg-léeg nag xëy na guddaayu dars bi surtout kii bi moo tax waaye incha allah bu ñu fàttewul baat bi ah ah waa ala kulli xaal xam nga li problème bi mooy jàngale ci jàkka problème boobu moo ci nekk ndax bu dee classe dañuy am classe bi lii mooy seen niveau bay bi mooy seen niveau mais bu dee jàngale jàkk yi fa nga bëgg a tëdd ñaaxaanaay loolu mooy indi jafe-jafe ala kulli xaal daan jéem a bàyyi xel ñëpp incha allah beneen yoon waaw bismillah waaw waaw waaw bismillah waaw waaw dafa dem ba waaw ki nga xam ne dafa jóg taxaw fekk yëg na benn sujud rek la sujud waaw ku mel noonu da ngay gis ne dañ naan ko dafay toog bu dee ne toogul woon dafay toog gannaaw ba mu dem sujud ñaareelu sujud jóg ba julli waaw mooy ñaareelu sujud bi laa koy wax waaw mooy mujj sujud ñaareelu sujud ba léegi su sëlmalee su jullee ba sëlmal mu daal di julli mu daal di sujjuut yeneen ñaari sujjuut ndax taxawaay bi mu taxaw diggante ñaari sujjuut yi ca war a foon a taxaw loolu loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw waa ji wax baatu kéeféer ci xamul ne baatu kéeféer la ndax yàlla dana ko ko toppee ala kulli xaal dafa am ay baatu kéeféer yoo xam ne nii doomu aadama yi duñ ci bàyyi xel yëgul seen xol bu yëgul sa xol moom yàlla du la ko toppee aka bari ci nit ñi xatta ci ahlu sunna ngay toog ak ñoom ñox ñu ne laa ilaah ah mu gaa yi ndax xam ngeen laa ilaah baatu kéeféer la baatu kéefir bu tar la sax laa ilaha ah laa ilaah mooy li communiste yi ak athée yi di wax laa ilaah yàlla amul amul lu ñu war a jaamu yaa ngi dégg mais loolu yàlla du leen ko toppee amaa nag ba yeggee sa xol loolu kufr la bu rëy su ko defee bari woon na ci jamono yonent bi it ay nit daañ wax ay wax masalan insha allah wa shit bu neexee yàlla neex la yonent bi sa ajaaltani lillahi niddan ndax da nga may booleeg yàlla di ay bokkaale donte ne waaju jiblu ci woon bokkaale kon daal waaju bu dee ñàkk a xam la baatu kéefër génn ci gémmiñam loolee yàlla du ko ko toppi waaye nag wareef la ci képp ko xam mu leeral ko loolu bis bañ koo ko xamalee nag mu waxaat ko day dugg ci la nga xam ne mooy lu garaaw mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ah waaw weer wi feeñoon na keroog alxames donc tey jii mooy ñetteelu fan ci li ñuy tudde jumaadul ula weeru jumaadal ula tey mooy ñetteelu fan di dimanche bi wallahu subhanahu wa taala alam naam parce que waaw ñu mujj ca mbokk bali am waxtu bi yàkk na ah bismillah waaw waaw ki nga xam ni waaw non non waala ku li xaal mooy déjà li ñuy jëkk a wax ci wàllu at gi ne sénégalais yi liñ ci boole seen commission yi mooy nit ñi ñëw ñu ne leen def leen ifraat ñu def ifraat ba pare ngir duñu rey ñu ne nag bu ñu pare nag nañ génn nag mbooloo mi yépp ñu dem waajal umra si loolu laa ni gisuñu ko ci téere yi te it du woon doxalin yonent bi alei salatu wasalaam firiwul nañ ne lañu def yàlla du ko nangu at nañu umra nañu waaye daal nañu xam ne defuñu la gën daf ñu la gën donte ne ni na koy def ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala nangul leen mi ngi noonu loolu ki am ngant moo koy def ku am ngant gu toll ni ngantu Aïcha wala nga am ngant feebar bu mu mën a doon ku mel noonu moom may nañ la ko nga def ko mii ki amul ngant moom dañ laa sant nga jaar ca la nga xamee ni nii moom mooy sunna léegi ci premier laaj bi la la ci waxoon waa dafa dabu ci julli yow da ngaa ñëw ci imaam bi nga demee fekk imaam mi ngi rukkoo yow nga ne allahu akbar avant ngay teg say loxo wala bi nga tegee sa loxo dégg nga ne imaam ne sami allahu liman hamida ngay sikk sàkka ndax man ànd naag imaam ci rukkoo wala amoo àndoog imaam ci rukkoo borom xam-xam yi foofu dañ naan loolee rakka shakk la képp ku sikk sàkk nag ci rakka yaa ngi mel ni ki doon julli naan ndax am naa trois ou quatre kon da ngaa sikk sàkka rakka boobee soo paree da nga koy fay waaye nag bala ngaa sëlmal da ngay sujud qabla salaam su doon te ne wóor na la ne moom yàgg imaam tegoowu leen ay loxo su boobaa da ngay fay rakka bi rek sëlmal jeex na mais bu dee da ngaa sikk sàkk ndax man ànd naa moom ci ruko wala ànd maa moom ci ruko da ngay éliminer rakka bi indi ko boo jullee ba pare waaye teewul da ngay sujud qabla salaam avant ngay sëlmal ngir sikki sàkk boobee nga xam ne moo nekk ci yow mi ngi noonu mbokk julit wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain